Gris Bordeaux Ama Baldé CNC dàbbal ñi na date bi nga xam ni ñoom ñaar moom lañ war a daje tëjkante bi euh, le neuf la ñu ko jàpp loolee mooy tëj li nga xam ni euh, mooy yëglekaay yi ginnaaw bu ngeen defee seen i abonnement rooro li nga xam ni mooy seen télévision Alxaaji Maalik ci bi euh, lépp lu nu fi cabax ngeen ni ko ciixtee diglu ko njariñ ci YouTube beeg TikTok bi ginnaaw bu ngeen demee Mbuur téléphone original yi fa la ne li téll jéeg rajax-rajax jéeg may may ji fële ca marché central bu Mbuur li ko waral mooy korte gi nga xam ni jub se na gars yi raf la bu baax Mbour moom rek moo yor téléphone yi nga xam ni original la te yomb ndax euh, dafa mel ni kuy maye ci li nga xam ni euh, mooy feetu Korité gi nga xam ni ab promotion bu am solo la dabal ñi ci gaa yi nga xam ni euh, bëgg na nañu naaw coppati iPhone yu bees yooyu ngeen jënd fële ci Saalum iPhone sama waa a ñu ñëw ci Sadio Mané ñancoo mi nga xam ni fi mu toll ni daanaka na ci xam ne mooy nii lu Bayern bi nee na Sadio Mané uh, bu nekkul ca équipe ba daanaka boo amul sens laaxu ci faay la boo xam ne uh, bu amulum soow la loolee tamit kenn mënu ko weddi Iliman Ndiaye dugal na fukki bit ak ñett yoo xam ne uh, fële ca Champions League loolee mi ngi ci yëglekaay bi di record waaye Sadio Mané ñancoo ba tey mi ngi ci stade de yëglekaay mu xamle gone gi désormais ne fi mu toll nii focus ci li nga xam ne mooy City ak Ligue des Champions bi nga xam ne gone gi joxañ ba leer na la mu joxañ la mu dàbbar ñee leer lu mu bokkul neexul kon tey ji dana bokk ci li nga xam ne mooy équipe ba war dem fële wala équipe ba war a Manchester City gi nga xam ne moom ñaancoo xam na ko bu ba a baax koo xam ne mi ngi ci biir yëglekaay bi bi nga xam ne Cheikh Tidiane Sidibé moom la dalal ci xëtt mu njëkk gone Tëngéej gi nga xam ne moom mii nga xam ne Tëngéej FC ak tañeer bi nga xam ne coppati woon na ko ndànk-ndànk loolee daanaka mi ngi koy dàbbar ñi benn benn ci yëglekaay bi nekk mbégte ci moom moo xam ne wiiw sport wiiw ne ko dalal ko ci yëglekaay bi bu ko defee mu mën a belli li nga xam ne moo ko neex ak li ko naqari Ama Baldé ne daanaka jàpp na ni dof du wér moo taxaw ci yëglikaay làmb ah, di xam le ni ah, combat boobee nga xam ne jàpp nañ ko CNC ah, taxaw na temm nag le 9 juillet mënu koo romb mënu koo passé dàbbar ñi bi ci combat boobee nga xam ne ñoom ñaari mbër yi nu daje bu boobaa nag fi mu toll nii ñaari ponk la yoo xam ne lekk xaalisu promoteur bu boobaa bëre force wala